an dañ koy jàng rek li wajhillaahi taala ne ndax waxu yàlla la ne waxu yàlla nag dafa sell ne comme ni mu ko waxee wax la ni la soo koy jàng nanga fexe ba sell na nga am njàpp ne soo amul njàppit doo ko jàng nee lu dul lañ ca waxoon ca lax dër ne kuy musloog yooyu ak kuy jàng moom la ñu permettre yend yi ne bu ko defee ñu jàng ko jàng bu sel ne dañuy fas yéene jàng ñetti kaamil insha allahu taala ne ñu yéene ko maam Cheikh Al Hadj Omar Fuutiyu ne bu ko defee nag ne li ci topp yëpp ni ne liñ ci war a def lépp imaam dina wax nan lañ ko war a defee ne bu ko defee ne ñu daal di tàmbali léegi incha allah. imaam mu ni gannaaw ba ñu nuyoo ñëpp. jiital ki nga ne moom la yàlla jiital ci place nee di fi jiital ki nga xam ni moom la yàlla jiital ci place bi tey. muy Seyxina Cheikh Ahmad Tall. muy Cheikh nee ñu lay wàcce sa wàccuwaay. di lay ñaanal yàlla. nag. lii nga xam ne moom lii nga xam ni moom nga indi fii. nga jëmbat ko. nga jëmbat ko. yàlla na sax. nee bu saxee nag. yal na am meññit bu amee meññeent ku ko lekkit yàlla ba mu weex nag yàlla na nooy nepp nag te yàlla loolu nag yàlla nekk di sansu dëkk bi nag dëkk yi nga xam ne jullit ak mboolem dëkk yi nga xam ne ay jullit lañu. ni mu ko waxee. mais ni nga ko waxee nag. ñu jiital alxuraan mi. nee ñu jotal ko njàngum alquran mi ñu jiital njàngum alquran mi bu ñu demee ba njàngum quran mi jeex dog yi ñu wax nag ñu def loolu nag ñu def ko lépp nag haddiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ko nag cheikhuna cheikhul omar fuuti yu taal nga xam ni nag. ki nga xam ni. mag ñi ñoo ne. ñoo wax ni. mooy bàyyu diine. kon nag baay. doom du xëcc koog moom. lu doom am nag. loola baay moo ko moom. ñu fas yéene nag. lépp lu ñuy jàng fii. ñu def ko àddiyam. yàlla ko yàlla jottal. ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa nee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni alquraanu lima quri'a wala alquraan alquraan lu ñu ko jàngee jublu ca loola loola rek la ñuy jàkkaarloo ba tax na nag lii daal alquraan ji ñu fi fas yéene jàng li ñu ci jublu yàlla na ko yàlla def ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii nga xam ne noonu la ko Cheikhina Cheikh Ahmad Tidiane mi waxee nii nga wax xamee ni noonu la ko Cheikh Ahmad Tidiane waxee ci njàngum alquran mi noonu la rek la jarul sax jarul sax wax ju bëri nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ni woon waratalil tartiilan yàkkamti bi yàkkamti bi matu ko matu ko ci di sellal rek sellal rek nañu def loolu nañu def loolu ñun ñëpp bisimilah nee na ñu ñetti kaamil nee na fas yéene ñoo jàng ñetti kaamilu quraan kuñ ci jox jukki kuñ ci jox jukki nag boo ko jàngee boo ko jàngee da ngay xaar ba benn bi mat da ngay xaar ba première kaamil bi jeex bu ñu joxewaatee ndigal ni ñu ngi jàngaat kaamil bi jàngaat ko. ñu jàngaat ko. bu jeexee. bu ñu dalluwaat. ba ñaareel bi ba ñaareel kaamil ba jeex. ñu jël ñetteel ba. bu jeexee. bu ñu defee xat bu ñu defee xatmul quraan bi. ñu jox Cheikh na Ahmad Tidiane mii nag. mi nga xamante ne mooy secret ceneen. mi ngay xam ne mooy secret ceneen bi. mu joxe ko mu joxe ko nag. moom ñu ñaan dog yooyu. moom ñu ñaan dog yooyu nag. defee bu ko defee nag. la ciy aju nag ñu dolli ko ca. kon ñu xaar ba imaam tijji bu tijjee ba joxe ndigal ñu commencé nag. léegi am na ay dog na ay ah, waaw ñu ngi ñëwaat ak saa Alioune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 bismillahi irrahmani irrahimi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fih hudan lilmuttaqin alladina yuminuna bilgaybi wa yuqimuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiqun walladina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bilaxirati hum yuqinun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 aw taxyiri xarfin aw taqdimin aw taxiirin aw ziyadatin aw nuqsaan aw tawinin ala gayri ma anzaltahu aw raybin aw shakkin aw taajilin inda tilaawati aw kasalin aw suraatin aw zaygi lisaan aw wuquufin bi gayri waqfin aw idgaamin bi gayri mudgamin aw haarin bi gayri bayaan أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمؤدب من كل الألحان فاغفر لنا يا فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ ماديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به خيره وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن الغفلة والكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمين كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جرار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقاء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 اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاعة القرآن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 وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية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 wa ila arwaaxi asxaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa ila arwaaxi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalin wa ila ruuxi cheikhina wa jaddina alxaaji omar alfuuti radiallahu taala anhu wa ardaana bihi amin